أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa marhaban bikum ma al anbiya alayhim alsalatu wassalam alyawma naaxuz addurus almustafada min qissati sayidina yusuf alayhi salatu wassalaam mbokk yi xam ngeen ne histoire yonent yàlla yusuf jeex na tey bu neexee borom bi subhanahu wa taala dinañ jël ay tomb pour jéem a jëriñoo dund yonent yàlla su Yuusuf lan lañ ciy jëlee ndax du hasard rek borom bi subhanahu wa taala di ñu nettali jaar jaañu gaa yu baax yooyu yonent yàlla yooyu borom bi subhanahu wa taala di ñu nettali seen dund ci alquran nekkul rek pour ñu jàng ko waaye dafa am lu seen dund ëmb bu njëkk ana ajmal wa ahsanul qisas huwa qisasul quran wa zalika lima fihi min al ibar wal izat wad durus wal fawaid at tarbawiya mu ne danañ gis ne li gën a rafet gën a baax ci ay nettali mooy nettali yi borom bi subhanahu wa taala nettali jullit yi ci alquran nettali yooyu ñoo fi gën a baax ñoo fi gën a rafet ñoo fi gën a neex lu tax ndax nettali yooyu dafa ëmb ay waaraate ëmb ay njëriñ ëmb ay tegtal waaye ëmb ay teggin yoo xam ne bu ci doomu aadama jaaree rek daal di jub loolu moo tax borom bi subhanahu wa taala di ñu nettali lool ñaareel bi mooy anna ruya as-saliha juz'un min sittati wa arbaina juz'an min an-nubuwa di leen jëlee ci dundu yonent yàlla yusuf ne gént gu baax dafa bokk ci juróom benn fukk ak ñeent xaaj ci yonent ak yonent bu dee téeméeri mbir la juróom benn fukk yi ak ñeent boo ko doon wàññ da nga gis balaa nit ki di nekk yonent da koy tàmbalee gis ci gént wala yàlla boog subhanahu wa taala da koy feeñal ay mbir ci gént di ko digal muy def di ko tere muy bàyyi comme ni mu feeñee ci genn wàllu yonent yu bare bare bare bari kon dana njàng ci histoire Yuusuf ne gént ci yonent ci mbiru yàlla subhanahu wa taala la bokk ñetteel anna man raa ruya saliha fala yuxbiru biha illa man yuhibbu dana jële ci dund yonent yàlla yuusuf képp koo xam ne ci ñun danga gént gént gu neex gént gu rafet gént gu baax bul ko nettali lu dul say soppe bul ko nettali lu dul ñi nga bëgg bul ko wax lu dul say xarit wa man raa ru'yan yakrahuha fala yuhaddis biha ahad wal yaqum ila sola danañ jële ci dund yonent yàlla yusuf képp ku gént gént gu naqari gént gu neexul gént gu ragallu yow looy def bul ko wax kenn bul ko nettali kenn waaye jógal nga dem julli ci dama nga julli ñaari rak yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na képp ku gént gént gu neex boo xëyee nettali ko say sopp waaye boo géntee gént gu ragallu waxal aouzu billahi min ashaitan rajim trois fois nga tëfli ko sa gauche gént gi du la lor ñeenteel mooy anna rajul yatamanna an yakuna waladuhu afdal minhu danañ jële ci dund yonent yàlla yusuf ci njàngaleem ne nit dina mébét su amee doom doom ji gën ko nit ku mu mën a doon soo amee doom ñaar di nga ko bëgg ci moom mu njëkk bi mooy mu gën la ñaareel ah bu mujj la àdduna nga njëkkoo de doo gis mukk kuy ñaan sama doom yàlla nañ dee bàyyi ma fi wéy jur lu muy ñaan doomam sul ko gis nga moo tax wéy jur kenn mënu ko fay fan nga mës a gisee kuy lay ñaanal ci àdduna naa la njëkk dee loolu amul fenn lu sa ndey ak sa baay ñoom dong ñooy téye sa loxo ne la yàlla nag ma mujj maa ngi lay dénk sama bopp bu ma mujj bu ma la njëkkee génn àdduna nag ma toppatoo ñoom rek kon dina jële ci dund yent yàlla yusuf nit su amee doom day bëgg doom ci gën ko ni yaaqub bëggee woon yusuf alayhi salaatu wasalaam gën ko juróomeel lu ñuy jële ci dars bi mooy annal xasad mustanshirun bayna kasirun min annaas wa qad yakun ahyaanan bayna al ixwa dañ jàng ci dars bi ne iñaan dafa tasaaroo kër yëpp la dugg iñaan bàyyul fenn foo foog ne iñaan nekk fa iñaan a nga fa soxor a nga fa mbon a nga fa ba ci kër yonent yi ba ci kër nit yu baax yi léeg-léeg nga nekk borom kër nga am diine sa soxna kazalik waaye ak iñaan am ci biir kër gi lenn ci ay individu yu juddoo ci kër gi wala yu yoroo ci kër gi kon dafa tasaaroo lu jar muslu ci yàlla subhanahu wa taala la léeg-léeg mu nekk diggante ay mbokk bokk ndey ak baay bokk deret ñu iñaanante loolu jàng nañ ko ci dars yusuf ak ay mbokkam juróom-benneel mooy ann alxiqda walxasada qad yaxmilu saahibuhu ala an yaqaa fi asyain muharrama wa qad yaxmilu saahibuhu ila zulmi aw alqatli kama xasada ma ixwati yusuf حينما زلموا أخاهم يوسف عليه السلام وألقوه في الجب جرام بينيلو تومب بو ñuy jëlé ci dars Yusuf moy soxor ak iñaan yenn saa yi mu nekk ci say àndaale yenn saa yi say àndaale ñoo lay soxore ñoo lay iñaane ba yenn saay sax loolu tàbbal leen ci ñuy def lu xaraam yenn saay sax loolu yóbbu leen ci ñu lay tooñ wala ñu rey la sax nag gis nga tey bëri na ci àddina bi ay histoire yooyu dégg da ngay dégg ñu ne xarit bi moo rey xarit bi wala wala xarit bi moo jaay xarit bi wala nangam ak nangam kon iñaan ak mbon yenn saa yi day dugg diggante ay àndaale kenn ki di soxore moroomam wala mu koy iñaane jàpp ne léegi waa ji raw ma wala sama place bi la bëgg a toog balaa lool nag dama koy fexeel dama koy liggéey mu dee wala mu boole koog ay nit ñu rey ko wala wala wala mu ne comme ni ngeen ko gisee ci diggante Yuusuf ak ay mbokkam ñoo ko tooñ dóor ko waaye yemuñ ci waaye ñu jël ko sànni ko ci biir teen bi yemuñ ci ñu génn ko ci biir teen bi jaay ko juróom-ñaareelu tomb lu ñuy jëlee ci dars Yusuf an al insaan la budda an yatazakkara inda zulmihi غيره أن الله قادر عليه فإذا دعتك قدرتك على الظلم العباد فتذكر قدرة الله عليك dinañ jàng ci dund Yusuf ci saar bi li ñu yàlla doon nettali doomu aadama foog muy fàttaliku tooñ gi muy tooñ jaamu yàlla yi sooy tooñ day ci fàttaliku yàlla soo amee doole bay tooñ wala nga nekk sañ def loo neex wax loo neex def nga am doole comme ni mbokk Yusuf yi amee woon doole jàpp seen rakk di ko noggatu su sa sa doole di poussé ngay tooñ jaami yàlla yi fa tazakkar qudratullahi alayka xalaatal ne yàlla moo la ëpp doole soo xalaatee ne yàlla moo la ëpp doole di nga yërëm jaami yàlla yi dootoo jël sa doole jooju ak sa kattan boobu nga koy teg ci kaw jaami yàlla yi ni ko mbokki yuusuf yi defee woon ci seen rakk boroom xam-xam yi dañuy wax ne la taslimanna iza ma kunta muqtadiran fa zulmu ta'tika uqbahu bin nadami tanaamu aynaak wal mazlumi muntabihun yaddu alayka wa aynullahi lam tanami bul tooñ de loo am doole am doole bul tooñ bul tooñ de da ngay tooñ nit dem tëdd di nelaw moom mu dem jàpp ba set lal si jaadam jàkkaarloog yàlla di sujjuut di la ñaan yàlla te yàlla nee na ñetti ñaan duma ko delloo bokk na ci ñaanu ku ñu tooñ te ku ñu tooñ boo sujjóotee rek yàlla nangu ko kon moo tax tooñ baaxul nit na bàyyi tooñ dinañ jëlee ci dars bi ba tey juróom-ñetteelu tomb anna nubuwa wal hidaaya hiya mahdu fadlullahi yutihi man yashaau min ibadihi ak yonent wala njub dafa bopp ci xéewali yàlla yi moo koy jox ku ko neex ci jaamam yi kenn du wax ne diwkat dafa war a nekk yonent parce que dafa dafa sant nangam diwkat dafa war a am xéewal parce que doo diwa ko jur déedéet doomu yaaquba yi lan moo leen war mooy seen bàyyi yonent la seen maam yonent la ñoom danoo war a nekk ay yonent ba ñu yëgee ne ñoom du ñu nekk yonent bi ñu tàmbali di fexeel ka koy nekk fekk ak yonent ak njub bi yadillah ci loxo yàlla la nekk yàlla mooy jubal ko neex yàlla mooy jox ay xéewalam ku ko neex ku mu ko jox lu war ñeneen ñi ñu muñ yàlla moo la ko jox jarul ngay saalit ndax yàlla moo ko jox yonent yàlla moo koy def ku ko neex nit du xëy nekk yonent def boppam yonent abadan comme ni mu amee Sénégal ay sëriñ lañ doon xëccoo ay nit xëy na ñoom ay yonent lañ léegi bàyyi nañ sëriñ ak wala yiw ay yooyu bàyyi nañ ko da ngay dégg ñu ne diw yonent yàlla bi parce que dafa mel ne nekk sëriñ dootul amati valeur léegi nit ñi de bëgg a nekk yonent nag léegi faf juróom-ñetteel aw juróom-ñeenteel ci dars yi jële ci dund yusuf an allaha qadirun ala an yahfaza abdahu almumin min almahalik yàlla subhanahu wa taala wallahi mooy borom kàttan moo mën a aar jaamam bi ko gëm te soo gëmee yàlla rek yàlla aar la kon booy laqatu bu laqatu ci kenn bul wéeru ci kenn wéerul ci allahu subhanahu wa taala ku wéeru ci leneen lu dul yàlla daaneel la yomb parce que ku la bëmax nga ànd ak li nga wéeru daanu waaye ku wéeru ci yàlla kenn mënu koo daaneel moo tax mu ne an allaha qadirun ala an yahfaza abdahu almu'min yàlla rek moo mën a aar jaamam ci ay alkande ci ay mbir yuñ lay teg léeg-léeg ku nekk ci liggéeyu lislaam bi di ci woote di woote tawxiid di woote ñu kennal yàlla nañu delloo yàlla li moom nañ ko wàcce palaasam nañ xam kan mooy yonent bi léeg-léeg ku mel noonu di nit ñi da ngay wuuteeg ñoom doo dégg ak ñoom tuuti dañuy jàpp ne yow da ngaa ñëw di leen xeex wala ñu jàpp ne yow da ngaa ñëw di leen diingat wala di leen xas fexe bu ñu am nag pour def la ko pour faagaagal la danañ ko def buñ la mënee jële fi ngay liggéey danañ ko def buñ la mënee génne dëkk bi danañ ko def suñ la mayoon soxna mun nañ ko tas buñ la utaloon liggéey mun nañ ko nangu dinañ dem ba njabar la suñ la mënalul dara danañ dem ba rey la am na ñuñ ci rey am na ñu yàlla rëccal ca yonent yi nag la tàmbalee banu Israël ñaata yonent lañ rey kenn xamul nu mu toll dañoo rey Yaxya dañoo rey la ilaha illallah yéen ba léegi xamu leen yonent yi ñu rey Isa dañ ko bëggoon rey yàlla yëkkati ko kaw asmaan yonent bi posone nañ ko wala ah Moussa ne nañ dafa xuuxaan Ibrahima sànni nañ ko ci safara gis nga am na ci ñu ñu rey ci ay nitu yàlla ay borom xam-xam am na ci ñu rëcc ñenn ñi ñu jàpp leen rey leen mu ngoog naka noonu kon nañu xam ne sunu borom subhanahu wa taala mooy borom kàttan bi aar jaamam ci ay alkande ci ay musiba yu ñu ko bëgg a teg kon fa laqad xafisa allahu nabiyahu yusuf xool yusuf fi mbokka mi jaar ak moom yépp xool leen yusuf fi mbokka mi jaar ak moom su doon seen pexe la kese kese est ce que yusuf dana nekk yonent ah mbokk yi aleykum salaam aleykum salaam kon dégg ngeen loolu mbokk yi mu ne sunu borom subhanahu wa taala moom mooy aar yonentam moo aar yonent yàlla moo yonent yàlla yusuf ci bépp mbir bu ko gaa yi teg yàlla aar na ko ci teen fil jubbi mina saalabin ci ay njàppaan wal aqarib wa hafizahu xaarijal jub yàlla aar na ko ci biir teen bi waaye ak ci ginnaaw teen bi ci lépp wa hafizahu fi kulli marahili xayaatihi min ay munkar mbooleem étape yi mu dund sunu borom subhanahu wa taala dafa aar yusuf mbooleem étape yi ci lépp lu bon lakin hada la yamnaw an yabtali allahu abdahu almumin li yarfa darajahu waaye nag léeg-léeg bu kenn wax ne man dama ànd ak yàlla rek kon buñ ma bëggee fexeel du ànd déedéet yenn saa yàlla nattu la mu seetaan gaa yi njabar la mu jàpp la mu seet ndax yow bu la njabar bi jàppee looy fajoo ndax doo weddi yenn saa yi mu seetaan gaa yi koj la ngay julli ji fajar ñu dóor la gaañ la yàlla muy xool ndax après da ngay noppi wala da ngay continuer léeg-léeg yàlla mu bàyyi gaa yi daal lay dàq fi nga doon liggéeyee mu xool ndax da ngay noppi wala da ngay continuer léeg-léeg mu xool gaa yi génne la dëkk bi mu xool ndax da ngay dëgër wala da ngay Ibrahim gis ngeen yonent yàlla Muhammad gis ngeen ah génne wuñ ko génne nañ ko wala génne wuñ ko dóor nañ ko wala dóoruñu ko lépp waaye yàlla day toog di seetaan dalay natt alif lam mim ahasiba annas an yutraku an yaqulu amanna hum la yuftanun yàlla dalay natt mbokk yi fukkil an allaha aza wa jal yafdahu alkadibin fi dunya qabla al axira ñu ñëm nañu ànd xam ne bokk na ci li ñuy jëlee ci dund yusuf mooy borom bi subhanahu wa taala day gàcceel fenkat yi àdduna balaa àllaaxira ñëw képp kuy fenkat képp kuy fexekat képp kuy soskat képp kuy narkat yàlla dina la gàcceel àdduna balaa àllaaxira ñëw loolu jàng nañ ko ci histoire yusuf mbokkam yi dem nañ def seeni pexe jël yére bi taqal ko deret ñëw ne baayam tilli yee ko lekk tilli bee ko lekk fu ñu mujje ñu am gàcc keroog ba ñu ba ñu xamee yusuf mu taxaw seen kanam am nañ gàcce wala rusuñ moo tax fen baaxul julli day mooy tandiku fen loolu moo yonent saa salaam ba muy dénkaane ci fen ci xadisam bi mu ne iyaakum wal kasib mooy tandiku leen fen fa inna al kasib yahdi ila al fujur day yóbbu nit ci kàccoore ah xadis bi ñu bëri dañ koy jàng mais dégg na ko mooy tandiku leen fen ndax fen da lay yóbbu nga nekk kàccoor gis nga boo tàmmee fen xam nga foo looy mujj nekk bandi dootoo am frontière ci def lu bon foofu la lay yóbbu ilal fujuur bunt yëpp ngay def léegi lu ñëw nga def foofu nag musiba la boo fa yeggee moo tax fen baaxul te fenkat sàcc la alkazaabu lis fenkat sàcc la sàcc lu muy sàcc sàcc bu ñëwoon sa kër lu muy sàcc sa xaalis bu ngeen doon doon nga yor portable lu muy sàcc kon sàcc alal lay sàcc ah sàcc alal lay sàcc fenkat lu muy sàcc sa xel sa xel lay sàcc alkazaabu lisum fenkat sa xel lay sàcc day ñëw fekk benn mbir bu dul dëgg mu wax la ko wax la ko ba nga gëm ko fekk du dëgg sàcc na sa xel parce que gëm nga ko wala mu ñëw fekk luy dëgg mu wax ko wax ko ba nga ba nga ne du dëgg mu tax fen ban bon mu ne falaqad raayna gis nañ kayfa anna ixwatu yusuf lamma kazzabu qaalu li abihim inna ziba akala yusuf mu ne gis nañ ñun ñëpp ci dars bi mbokk yusuf yi ba ñu fexelee yusuf ñu ñëw ci seen baay ñu ne till moo ko lekk gis nañ keroog ba mbir mi leeree naka la ñu amee gàcce ci seen kanamu bàyyi waaye ci seen kanamu mbokk yi waaye ci kanamu àdduna fukkeel ak benn iza arada allahu shay'an qaddara asbaabahu yàlla bu nammee def dara sabab yi lay dogal yàlla bu bëggee def dara da koy utal ay sabab bu la nammee rey sabab bi muy def pour nga dee mooy day feebarloo gis na bu la nammee nga am xam-xam sabab bi muy def mooy da ngay takku jàngi bu la nammee def ab kàccoor dalay yombalal am am ubbil la yoon yi nga départ dafa ne fiix nga li waa Sénégalais yi di wax diw rëcc na billaahi rëcc na kooku tekki na fekk xamuñu ne nattu la falamma arada allahu aza wa jalla bi yàlla subhanahu wa taala namme an yakuna yusuf baada zalika azizu misra jaalahu azizu misra bi yàlla nammee def yusuf premier ministre égypte yàlla def na ko wala def fan la ko jële avant prison fan la ko jële kër baayam fële ca kanaan xoolal nu mu turmurankee ba ñu teg ko ci marché di ko jaaye nga dégg waa ji naan kanam gu rafet gii amul ci jaam yi ku ko gën a rafet kii ko dugal sa kër texe nga dégg beneen waaye ci wetam naan jaam yi dañuy lekk tuuti di bay lu bari ay ngandalañ est-ce que dégg nga loolu boo ut liggéey kay kat liggéey kat kuy lekk tuuti di liggéey lu bari ñu ñeme coono lañ gis ngeen doole yi ngeen dënn yi gis ngeen tànk yi ndeysaan ñu teg ko di ko jaay xoolal mu traversé foofu mu dem palais ba fu fan la mujj mooy yàlla mooy joxe yàlla def ko mu nekk azizu misr sunu borom subhanahu wa taala programme kenn mënu ko téye loolu nit ñi xamul xoola histoire firaw naan Moussa Moussa fan la yaroo kër firaw na ci jamono boo xam ne nee nañ xale bu góor bu juddu rey leen mu juddu firaaw na fekkiwul yàlla jël xale bi jox ko ko ne ko yaa koy yar bu màggee daaneel la xoola yusuf gars yi baare nañ yoon yëpp waaye terewul yàlla def ko azizu misr ba pare yàlla delloowaat ko ñu ñëw sujjóot ci kanamam kon yàlla innama amru iza arada shay'an an yaqulu lahu kun kenn mënu ko téye mbokk jullit yi ñun ñëpp ànd nañ gis yusuf yàlla def na ko azizu misra xoolal ni ko azizu misra jëndee yar ko ci pale bi li yataalama yusuf ala yadihi ilma al iqtisad est-ce que xam ngeen ban secret moo nekkoon ci buur bi dem marché ba fekk fa xale bi jënd ko indi ko ci kër gi lan la ci yàlla defoon foofu est-ce que dafa jënd nii jaam rek ah am na lu fa yàlla def lan la fa yàlla def mu yar ko kese ak lan ak lan pour Yuusuf buur bi jàngal ko économique pour su màggee mu nekk ministre bu yor mbirum économique réew ma di jaal nii ala xazaini l ard pour mu jàng économique ci loxo buur bi moo tax ñu jaay mu dem jënd ko moo tax ñu jaay ko xoolal buur bi moom bi mu koy jënd lan la lan la xalaatam xelam xalaat mooy am naa xale bu rafet aw ma doom moo koy indi mu wéttali ma fekk yàlla weesu na foofu firawna bi mu yar Muusa lu mu waxoon qurratu aynun lii ay waay ndeysaan fleur de mon cœur du noonu ngeen koy waxee ah fleur sama sama xol xale bi sama fleur xol la comme awma doom nañ ko yar ndeke yàlla moom weesu na foofu lan la léegi day ñëw daaneel la kon nit ñi seen programme ak programme mu yàlla du benn pour mu jàng économique wa allamahu ilmu taawil mu jàngal ko nu ñuy firee gént li ann al malik sa yaxtaaju ilayhi ndax buur bi yii nii dina ko aajowoo wa sa yajaluhu azizu misra su boobaa dina ko def premier ministre u Égypte kon gis ngeen yàlla fukkeel ak ñaar ci tomb yu ñuy jëlee ci dund yusuf mooy an al ixtilaat sababu kullu balaain wa char jaxasoo góor ak jigéen moo ubbi bunt yu bon yépp ci sunu dëkk bi ci dëkk jullit yépp jaxasoo ci oto yi jaxasoo ci kër yi jaxasoo ci liggéeykaay yi jaxasoo ci école yi jaxasoo góor ak jigéen xataa ci bool bu ñuy lekkee day indi fitna yaa ngeen dund yonent bi alayhi salaatu wasalaam teg nañ reer di reer Aïcha dugal loxoom am ku jàpp loxo bi Aïcha ne am na ku téye sama loxo keroog la góor ak jigéen bàyyi lekkandoo kër yonent bi alayhi salaatu wasalaam lan moo tax Yusuf am problème kër buur bi ah jigéen dafa nekkoon fële jigéen ñi nekk fee wala nekk ci biir jigéen ñi di toog ak ñoom di lekkandoo ak ñoom di waxandoo ak ñoom jigéen seytaane la yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na surtout jigéen ci gëmul yàlla seytaane la boo amee ay doom yu góor ak doom yu jigéen bu xale yu góor yi amee sept ans bu ñu bokkatee xale yu jigéen yi fu ñuy fanaan wa farriqu baynahum fil madajii waratuñu bokk fu ñu tëdd bu dee ay ponkal nag wala léegi ñun suñu kër yi va et vient ku nekk di ñëw porte ouverte jaxasoo góor ak jigéen musiba la fépp fu ay góor ak jigéen di jaxasooye jàmm lu fa am borom xam-xam yi nee nañ jigéen ak góor mi ngi mel ne rek golo ci suufu garab boo fekkee golo ci suufu garab ñaar rek moo ci am ñaari mbir moo ci am ban ak ban la yéeg na ba pare wala muy bëgg a yéeg mooy jigéen ak góor Hmm? d'accord nga wala ci suufu garab ñaari àtte rek la dafa yéeg ba wàcc wala muy préparé pour yéeg muy jigéen ak góor dara indul Yusuf natt lu dul jaxasoo kon jaxasoo baaxul mu ne anna al ixtilaat sababu kullu bala'in wa shar wa qad ra'ayna kayfa anna al imra'a anna imra'a العزيز كانت تختلط بفتاها نبي الله يوسف gis nañu ñu ñëpp ndaw si ni mu daan jaxasee Yuusuf ak xale jigéen yi bal boppam dem na sax ba organiser fête woo jigéen ñëpp jox leen ay paak ne leen nañu xolli orange walla pomme ñoom ñëpp mu dem sang yusuf solal ko ba mu rafet daal di koy génne ñoom ñëpp ba ñu gisee yusuf lan lañ def wa qatta'na aydiyahunna wa qulna haasha lillahi ma hada bashar iis xoolal jigéen xool góor ba xool bi dépassé ko mu yoroon paaka di dagg loxoom te yëgul ne mu ngi dagg loxoom ndax rafetaayu xale bu góor boobu lu ko waral mooy jaxaso léegi nii loolu mooy am di nga gis benn waay boo xamante ne dafa doon def dara xale bu jigéen romb ko rek dootul xam lu mu doon def bu doon sotti essence mu ne ko nii ci suuf léegi ñu ne ko yee mu ne ah doo ko orienté waa wala wala du jeex ak bëri lu ko waral mooy jaxasoo te tey boo ko fi bëggoon def sa kër waa amoon kër nga def ko ñaari appartement jigéen ñi fi góor ñi fi nit ne asalaamaaleykum nga ne ko waaleykum salaam mu toog lekk naan ataaya ba ñibbi jot mu dem gisu gisu jigéen ñi bu demee xam nga lu muy wax lu muy wax ñii kii dafa dof jigéenam ñi mu tëj për tër tër tër tër tër lu leen mu yekk la ko lu la muy diine mooy pour ñu ñoŋ góor ñi ñoŋ jigéen ñi ñoŋ ñaata jigéen nga fi dégg yu seen xaritu jëkkër nangu loolu da nga koy gis fii ci artistes yi dañuy solante ay jabar dañuy nangonte ay jabar comme kuy sumi mbubu xam nga lu ko waral muy seen jabar yi dañuy génn partout guddeeg bëccëg di yendu ci stade yi di fanaan ci stade yi di tukki dañuy dem dajeeg benn milliardaire mu ëpp seen jëkkër xaalis am na benn sëriñ boo xam ne daa gis benn jabaru taalibe rek mu woo jabar ji ne ko yow doo yow doo yow jabaru kilifa nga yow doo jabaru diw yow kilifa moo la war a takk gis nga de yow yow kii kii dafa tuuti ci yow yow kilifa yaa ngi dee de xanaa danga koo xam mu dem woo mbokk ndaw si ñooñu ne ko boo ko bëggee pare na kële pare na ci moom kay waxal bëgg nga ko rek ñu may la ko mu ne waa fexe leen sëy bi de gars yi dem doo si tapas waa ji bu bay bagage am dem waa ji takk ko sëñ bi takk ko te te ku siiw la fii ci dëkk bi ñëpp xam nañ ko dañ koy tagg di ko woy ci rajo yi moo ko soxna soosu yéen a ma ko gën a xam te yéen bëgg ma wax tur bi du ma ko wax non lu ko waral mooy jaxasoo naka la nit di amee taalibe nga dem xëy bàyyi ko sa jabar ci kawlal bi muy dugg di ko bës ak bës jigéen dina bës góor loolu dafa wóor ah dama koy bës inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ndof weesuwul nga bàyyi sa jabar muy bës góor ndof weesuwul loolu laa wax loolu nit di ko sax def nit moo tax islam mooy dëgg islam moom rek mooy dëgg leneen lu dul islam du dëgg islam lu mu wax rek mooy dëgg keroog ba ndaw si ne waa ji ne ay sanee am na ku téye sama loxo keroog la góor ak jigéen gëj a lekk biir këru yonent bi góor ñi seen bool jigéen ñi seen bool loolu mooy diine loolu mooy diine waaw ku ko mën na nga def ko ku ko mënul nag nga def ko comme ñun ñu koy defee rek nga teg benn bool ñëpp ñëw jaxasoo yenn saa yi sax nga gis benn waay bu wé benn xale bu jigéen bu wéeru ci góor di tibb wala góor gi ñëw wéeru ko ndeysaan yàlla na yàlla jubal te may ñu mooy kattan yi ñu mën a dunde diine mbokk yi fukkeel ak ñett an al muslim al xaqiqi huwa allazi yugaaru ala nisaihi amama alladi la yugaaru ama alladi la yugaaru ala nisaihi wa huwa dayuus فقد حرم الله الجنة على الرجل الديوس الذي لا يغار على نسائه كلا نيت julli dëgg-dëgg mooy koo xam ne day fiire ay jigéenam da nga leen di fiire bu ñu solee lu jaaduwul nga ni leen simmi leen bu kol gi jotul nga ni leen dellu leen bu ñu génnee nga ni leen fu ngeen demoon ku ñu taxawal nga ni kii kan la ku leen di seet si nga xam lu muy dox suñuy génn nga xam fu jëm kooku mooy góor dëgg kooku mooy julli dëgg da ngay fiire sa njaboot bu jigéen waaye mais li xew tey seen kër am na xaj góor ak jigéen bu ñu dajee xale bu góor bi danaan xale bu jigéen bi est-ce que seen kër am na xaj lu jigéen bi tont waaw am na xaj kan mooy xaj bi paa bi yéen paa yëpp nee nañu ay xaj ngeen xale jigéen bi la xale bu góor loo koy wax seen kër am na xaj bu dee ku papaam fiirul mu ne déedéet seen kër am na xaj wala ñu ne itilaire la itilaire moo fa nekk dégg nga wala suñu kër amul xaj mooy paa bi fiirul suñu kër am na xaj mooy paa bi dafa fiir paa bi mooy xaj bi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun wala du loolu mooy mooy terme yi noonu la de ah bu dee xale yu góor yi wala ñu ne paa bi naan te la quoi xam na nu mu demee use ba la nekkoon non paa bi dund na affaire yi booy ñëwal rek nga ne xale bu jigéen bi non non dama sollu ko am na non paa bi naan te la ñëwal. gis nga ndeysaan xale bu jigéen bi ñëw ak yu gàttam ak yu bonam papa ana diw mu ne ma ngi ci biir diw. wil ki lay seet génnee mu ne ko nii man gis nga bi ma ci tollee nii laa doon def wala mu wala mu mu ne ko ndeysaan am na benn góor doomam da doon jàng lima limaamulaay mu feebar xale bu jigéen xam naa allahu alam faram la wala du faram mu toog trois jours gis ko mu laajte ñu ne ko diw def feebar mu dem Pikine tali bu mag jënd ay pomme orange banana mbuus ba mu fees mu ne day seet xale bu jigéen bi mu ñëw fekk paa bi yor tëdd ci piliyaan bi ci buntu kër gi mu dugg asalaamaaleykum paa bi ne ko waaleykum salaam mu ne diw fii la dëkk mu ne waaw mu ne anam mu ne mu ngi ci biir waa ji bëgg a dem mu ne ko dé kaay loo koy dee mu ne ko damaa di ko defa feebar mu ne ko mu ngi tane mi ngi tane mu ne lii laa koy jox mu ne ko tegal fii bu génnee ma jox ko gis ngeen noonu la borom kër di mel waaye mu ngi ci biir rek mu dugg ci biir ba yow boo soxlaa néeg bi da nga naan mooy bàyyi leen li ngeen def maa ngi ñëw wala du lool du lool loolu maire yi ak paa yi waaw ñoom ñëpp a koy def ba ñoom bu ñu soxlaa néeg bi pantre bi xale bi jigéen bi nekk ak waa ji depuis gée ba ay minuit di bu ko jot paa bi bu fa duggee dugg day jéem a xaddamti ko wala mu fëgg mooy bàyyi leen ngeen def maa ngi ñëw ñu ngi ñëw nga dugg fekkee toog fi ki toog fi fekk dañoo jegante woon mu am suñu kër yi léegi nag da ngay jékki-jékki dara am li yàlla doon tere kon nag julli dëgg mooy koo xam ne day fiire njabootam waaw bu yeboo ñu ne la paakaani bu dee ñu ne la itilaire bu yeboo ñu ne la allemand bu yeboo bu yeboo bu yeboo façon baat bu nekk ñu tuddee la ko nga rëcc yowmal qiyaam sa njaboot rëcc mu am moo gën nga nekk fii di jéem a nànd nàndulu te nàndoo di jéem a nangam nangam tubaab tubaab lu te doo tubaab ba sa njaboot dugg ci musiba mu këpp sa kaw waaw ña yàlla musal mu ne bu fekkee nag waajoo xam ne du fiire njabootam kooku moom la alxuraan moom la yonent bi naan diis kooku yàlla dafa araamal ci moom aljanna ñetti nit salaasatun qad harrama allahu alayhim aljanna ñetti nit yàlla araamal na ci ñoom aljanna ñetti nit ku mujj gi mooy allazi yuqirru suufi ahli ku waa këram di def lu bon mu naan ay xale lañ rek bu ñu màggee mu deñ non bàyyi leen ñu foo yow tamit ah am nga yow bi nga nekkee xale da nga doon foo non non bul keneen xale yi toi aussi non yow seeg non yow non mais non rek nga de non xaw daal leen bàyyi musiba dal na la keneen ki mooy beneen riwaaya bi yeneen di beneen alladi yarda alxubusa fi ahli mooy koo xam ne waxuma la mu bàyyi leen ñuy def lu bon mais moom da ci kontaan sax mu naan bon yéen tey la lan ay ne tey la 23 mu ne mais il paraît suba la 24 ñu ne waaw mais mu ne lu ngeen pare ay dafooy dem ana ndey code mais fu ngeen pare pour dem mais lu ngeen di sol génne xaalis yow la nga ne 50 000 papa kii ne kii non man 35 000 kii ne ku ne nga jox ko noo xoolal mais dem leen nag xoolal mais xoolal ah di jéem a baax baax loog tubaab tubaab lu ñu génn mooy yàlla ba doyal taqarib sobe delsi nga fekkee yaa ngi tëdd sa kër kooku yonent bi nee na yàlla araamal na ci moom aljanna du dugg aljanna jamais allazi yarda alxubusu fi ahlihi kooku mooy dayus du dugg aljanna jamais yonent bi moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam mu ne ki waa këram di def lu bon baada das waqad raayna gis nañ kayfa azizu misra kaana laa yugaaru ala imrati gis nga li daal yusuf yëpp mooy azizu misra premier ministre bi daawul fiire jabaram lu ko neex lay sol fu ko neex lay dem ku ko neex mu dugal ko ci biir néeg bi ku ko neex mu entré ku ko neex mu lëng ku ko xoola léegi li am ah xoola li am léegi ci sunu société yi ndeysaan sunu benn mag bu ñu doon jàngal mu ne xale yi bu benn événement amee ñu bëgg a organiser baal mu ne baal rek ci olof mooy lan baal mooy mooy bàyyil mu ne dèjà dañ leen ko tere baal dañ leen ne bàyyi leen baal mu ne duñ ci yem ñu ne dañuy def cholédéra mu ne du cholédéra gaa yi ne ko lan la mu ne koll yu darante ku jigéen di indi kollam ku góor ki indi koll ñu tegante ko xam nga boo nee paa bi damay jël sama koll teg ci sa koll doom bu jigéen du dem waaye dañu ne paa dañuy tëgg benn cholédéra quoi paa yu xamul luy cholédéra ci àdduna mu ne ko demal te bul guddee fekk mooy jox ma sa doom bu jigéen bi ma jël sama koll teg ko ci kollam bi ñaari koll yu dajante góor ak jigéen lu ci des ah te ndaw si daana ko solul mbubu soo kontee soo jëlee yére bi mu sol ak li mu jiital ak tubéy ji boo ko peesee matul kilo loolu yére la ah ñu nekk ci lu mel noonu làmp bu mel nan la ñuy taal bu rouge rouge lan la rouge lan la du danger yéen borom oto yi rouge lan la du danger ngeen ci wax foo bi bu tàkkee nit ñi ni ñuy def loolu moo am suñu société waaw mu ngoog dana leen yàlla jubal pour mu gën a yomb nag ñu ne jigéen ñi duñ fay femme libre jigéen du fay waaw mu ngoog waaw sàngara ku jënd billet sàngam sàngara da ngay naan consommé lan consommation lan gratuite dañ lay jox nga naan ba doo fay allahu akbar ñu indi la jigéen yi duñu duñu paas lu ci des maam Sénégal ñu neen yàlla jubal fukkeel ak ñeent an al mar'a la budda an tastaghila bi ay amalin fihi xayrin li nafsiha wa li usratiha wa li diiniha wa li wataniha jigéen il fallait que ñu occuper ko ci dara il fallait que mu def dara loo xam ne lu baax lu koy jural njëriñ la moom ndaw si wala fameem wala diineem wala réewam bu ñu bàyyee jigéen ñi ñuy lambar lambar yi amuñu lu ñu def occupé wuñu leen dara ci lu leen di delloo mbaax ci seen bopp jàngaluñ leen comme tey société Sénégal jàngaluñ jigéen ñi da ngay dégg sax bu dee njàngum diine la ñu ne du ci jëlee yaay kaay seet jigéen du jàng foo mos a gisee jigéen juy jàng foo gis dama nga sëy yàlla yi doo doo jàng moo tax jigéen ñu bëri fii mënuñu faatiha mënuñu jàpp mënuñu sangu janaaba xamuñu dara ci seen diine jigéen ñi lu gën a alko ci Sénégal day gis jigéen ñu am fanweeri at sëy mënul jàpp loolu du jeex ci biir dëkk bi di gis jigéen joo xam ne aji na màkk mënul jàpp mënul sangu sax mas naa jàngal jigéen ju aji màkk bu ñëwaat ma koy jàngal nu muy jàppe ak nu muy sangoo janaaba mas naa ko def man nga loolu musiba la yenn saa yi nga gis koo xam ne sëy na ak jëkkëram juróom fukki at juróom-ñaar fukki at jëkkër ji dee ñu koy jàngal nu muy sangoo ci ténj bi ak nu muy jullee di ko jàngal faatiha ci julli ci ténj bi naan ko faatiha loolu ban ténj la loolu ban diine la nan leen yàlla jubal kon mbokk yi wa zalika li anna al mar'a ida kanat fariga la taamal ay cheyin fa innaha tastaxilu bilqayl bilqiila walqaal mu ne jigéen buñ ko occupé wul ci dara mu def lenn lu koy delloo mbaax ak njabootam ak diineem ak réewam dafay nekk rek comme tey li am ci mbedd yi lay nekk nee nañ ma ne nee nañ ma ne wala muy toilette di jaayi boppam wala di dugg ci yu bon kon ku ci am doom bu jigéen ci ñun wala soxna wala sœur wala fexeel nga orienté ko orientation bu jub fexeel nga jàngal ko fexeel nga yar ko fexeel nga wàññi ko ak nag lépp loolu la ci mën a fekk ak méthode yoo mën a jaar ak yoon yoo mën a jaar ba ndaw si jub am conscience bu yeboo nga def ko ixwaan yi jigéen ñi bu ñu leen occupé wul rek musiba am tey xëy na sax ci jamono sedd lañ nekk waaye ci jamono tàngaay ñaata jigéen ngeen gis ñoo am grand place bu ñu añee ba pare rek ci mbedd mi la ñuy toog di jëw di fen di rambaaje di jaxase di tëni dugg ci yu kenn xamul ñaata di jeex koñ boo dem am na fa grand place yu jigéen lu ko waral mooy ñàkk occupé loo jigéen ñi kon mbokk yi li des ci dars bi ci duruus al mustafaada min xayaati nabillahi yusuf dañ koy bàyyi insha allah ba àllarba bi di ñëw ñu daggu ko ci fukk ak ñeent yi mu des dem na ba fanweer ak ñeent kon insha allah ñu dagg ko ci fukk ak juróom yi ba àllarba bii di ñëw assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh